xam nga koo Adji Sarr mënul bind plainte parce que amul sax BFM ok du dëgg mais boobu boobu la waroon jàpp ne Adji Sarr mii mënta faj parce que pour nga faj pour nga doon kinésithérapeute pour nga doon docteur il faut bac plus cinq bac plus huit ok pour mën a def tey merci honorable li nga xamante ne moom la Ousmane jërëjëf merci merci honorable merci euh, ma ñëw ci euh, Cheikh Ousmane Touré Cheikh gis nga euh, Ousmane gis nga réaction Samba Dang ak réaction honorable député ci dossier bi nga xamante ne tey jii vraiment ça suscite beaucoup d'interrogations ah. li leader de Pastef génn aussi wax ko sénégalais yi ñu koy dégg mm-hmm. ban jàngat nga ci am waaw ah, xam nga dossier bi dafa bëri élément yoo xam ne dafa setal président Sonko. Mhm. ba pare dafa dëggal teesu complot bi. ah bon waaw. parce que déjà bi bi soxna si di génn. Mhm. bërëb bi mu waxee ni fa lañ ko doon siifee mhm. muy Sweet Beauté. mi ngi ci période couvre-feu. Ousmane Sonko député la dafa moon laissez-passer am na droit circuler ci couvre-feu bu ko neexee sax dem toog ca kaw monument Renaissance taxaw fa moom la engagé. moment que am na laissez-passer. souvent ñoom dañ koy tudd lu mu doon génn couvre feu mhm. couvre feu Ousmane Sonko amoon na droit circuler ak ñi amoon laissez-passer ñëpp en tant que député en tant que du député amul laissez-passer mhm. mais am na oto bu am laissez-passer bu ko ñëw jël si mhm. ñu wax ne oto boobu dafa am ku ko moom kooku noonu diw la ci nguur gi la nekkoon amoon amay antécédent ak Ousmane Sonko ñii ni wax ni ca la ñàkk ko som wala ñàkk ko ki ko jël si yóbbu ko hôpital xawma gendarmerie Sida Ahmed Mbaye ñu wax ni neveu wu benn leader politique la bu bokk ci APR. Mhm. ki bind plant bi di goro leader politique bi am problème. Hmm? ak président Sonko. ok mu di ko xëccoo moo Dior Diagne yow la du man. ku hmm. nekk di ko jiiñ sa morom. ok Dior Diagne moomu ñuy wax ni soxna la ci kenn ci ministre yi ci réew mi. Mhm. plainte bi ñu bind. ku xam droit moo ko bind ba cible ay article mhm. waaw léegi yooyu boo ko dajalee boole ci pression bi ndey xa dund proposition yiñ ko def mu bañ ko mhm. ni ñu taftafay yëf yi indil un député benn convocation mun leen jaar leen fi ngeen war a jaar mhm. ba échauffourée yi ci am am ci mhm. le fait que moom euh, moom honorable toog fii di défendre le camp de Adji Sarr rek dafa dëggal le complot waaye yow Adji Sarr moom nee na défendre nee de. <laughs> c' est c' est charge de la communication de Adji Sarr Sonko moo yëy ut seize avocats boo ko neexee sax ut mhm. ndax tout l' appareil étatique est derrière Adji Sarr. Mhm. Mhm. tout étatique laa la est derrière seize mi sax doyut. bu mu nee dolli na dolli su Benno jëlee communication wu Adji ay nitu Benno jël communication Adji Sarr ministre de la République qui sort la veille de l'audition mm -hmm. non ça pose problème nekkatul affaire privée am na fu état far fi état far far la mooy ki wax ni dañ ko violé lan la Adji Sarr wax loolu foog ñu koy fàttali nit ñi. Mm-hmm. Adji Sarr def na man l'homme politique Ousmane Sonko day ñëw fi may liggéey di mu sàkku. Mm-hmm. sàkku na mu plusieurs fois te buy ñëw day yor fetal. Mm-hmm. ñaari fetal la yor di ma ko teg di ma sàkku. am na sax boo xam dafa ma yónnee message na ma xaar ma bul génn. lii la Adji Sarr wax. viol répétitif sous menace d'arme. askanu Sénégal nu ko waxoo dëgg askan bi moo ko waxoo dëgg li nga wax mënul ne. Mhm. certificat médical ñëw dàq. askan wala ñenn ci askan non askan bi la majorité parce que keroog li wàccoon ci réew mi doon a ñenn ci askan bi c'était la majorité des sénégalais. Mhm. raison pour laquelle force de l'ordre yi mënuñ leen woon contenir bu doon portion bu ndaw la force de l'ordre yi xajuñ ci ñoom mais askan bee wàcc ci tali bi. Mhm. moo tax force de défense yi mënuñ ci woon dara. léegi li nga wax mooy viol première thèse viol médical certificat médical bi na femme bii ñuy gis nii seize heures précédent yi amul rapport sexuel loolu benn. ñaata mhm. seize heures. seize heures précédent yi. seize wala seize heures seize heures yi précédé. Mhm. Mhm. amul rapport. dé déggoo xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw amul rapport sexuel. perte ndawam du léegi yàgg na. waxul sax ay jour ak fan lu yàgg la wax. viol wadd dafa vierge waaw te ndaw si dafa waxoon ne moom dafa moom dafa am ndawam. bañ koy siif ci la ñàkk ndawam période boobu. Mhm. te diggante bi muy wax ni ci lañ ko commencé siif ak ba muy ñëw rombul quinze jours. Mhm. te sa rapport médical bi nee na kii ndawam ñàkk na ko lu ëpp loolu. Mhm. donc loolu weddi na ay waxu ndaw si. loolu benn la beneen bi viol. premier élément d'enquête ci viol mooy certificat médical moo setal ki ñuy wax Khaliphone Sall. ñu nangu ko moo setal Ousmane Sonko ñu bañ ko sa pose problème. ok mais amul benn enquête est-ce que dafa am ñaari certificat médical certificat boo déggee li li honorable bi Alioune Badara Diouf di wax dafa fi ñuy tuddee turam na certificat médical bi ñu gis le journaliste Pape Alé hmm. ko doon wax c'est un c'est un commandant de la gendarmerie ci enquête interne boobu du ma ci hmm. dugg dégg nga li Pape Alé wax hmm. que waa ji def ne rapport bi Pape Alé Niang noonu boobooy certificat médical original bi. Mhm. waaye léegi man dama am benn problème. mooy ban. docteur bi délibéré certificat médical bi. Mhm. moo def prélèvement yi. ok nga weddi certificat médical bi bëgg gëm prélèvement ça pose problème. Ah. Alfousseyni Gaye moo def certificat médical moo def prélèvement ngeen weddi certificat médical Alfousseyni Gaye mais bëgg gëm prélèvement waaw loolu lu muy wuñu mooy damay ñëw Walfadjri ñuy tabax bâtiment bi ma ne fondement bi baaxul mais première étage bi wóor na lii kese la. doy na waar cest dire foog foog nit ñi dem ak seen xel. ñi ñuy waxal sénégalais yi classe politique bu foogee ñoo leen gën a yow ça pose problème. mënoo mhm. di tabax kër na fondement kër gi wuur baaxul amul fer bu doy mais premier étage bi wóor na. mënul mhm. nekk. doy na yow boo jëlee yow adayanu président Sonko. Mhm. mais lan nga xëy comparé. Mm-hmm. lan nga xëy comparer boo jëlee ADN dafa am loo xëy comparer lan nga xëy comparel mm-hmm. waa ji nee na fii bi mu ñëwee fekk fi dara dafa wow yow nga ne da ngay jël ADN waa ji mais lan nga xëy comparer du vent. ADN souvent ëmb la ñuy wax de. xanaa nga jël ADN aji sar comparé ko bu ko ndax ndax fekkoo fa beneen ADN. non ça pose problème. mais looloo fa ne. <laughs> mais looloo fa ne. Hmm. Eh, waa ji fekk non attention <laughs> waa ji fekku fa ADN kenn moo ko wax. Hmm. waa ji certificat médical moo ne fekkuma fa ADN kenn. Hmm. ndax kii sévère yi amul rapport donc <laughs> fekk fa ADN. lan nga koy comparé. loolu ça pose problème aussi lim la wax bu bu nee ADN souvent. lan ngay comparer ADN wax boobu day fekk non da doon fekk sax même sax xolo bu rapport amoon mais day fekk ay nit yu bari jaar fii nga bëgg identifier ñi fa jaar. ñi fa jaar absolument. jël ADN bii comparé ak yeneen ñaar wala ñetti ADN. maas xam nga dafa tagg léegi Alfousseyni Gueye. Hmm. moom la docteur non damaa wax rek nee na nee na certificat médical ba mu def. waaw. Hmm. Hmm. moom mi ngi fiyewu ci certificat médical bi ne disculpé na. Ousmane Sonko. waaye mais certificat médical boobu noonu. moo moo moo wax Alfousseynou boobu noonu moo def prélèvement bi. yéen a ko nag Alfousseynou moomu nag ngay munoo ko munoo ko wóolu fii. wóolu ko wóolu ko feneen des loolu yéen laa delloo question moi je parce que Alfousseynou. Ah, moom prélèvement moo def prélèvement c'est les enquêteurs ñoo ko laaj. mu hmm. prélever. waaw moom waxul ni damaa prélever parce que dafa lu ma fa fekk. Mhm. Ah, enquêteurs yi ñoo ma sant ah, prélèvement pour futur test ADN. xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw rek. léegi yow boo jëlee ADN waa ji lan nga xëy comparer loolu benn la mais pourquoi yow waa ji moom wax na léegi ni voie yu bëri. nga mun a jaar pour laaj ADN jàmbur lu tax nga tànn ca deret. kat nga foog ni président Sonko yàpp na doyen des juges. Mhm. mun na ko est ce que pare nga pour def test ADN Sonko génn na doyen des juges deret la ma ah. loolu ça passe. Ah, parce que moo nekkoon ci bureau waaw devant ses avocats man mm-hmm. yaakaar naa ni Sonko avocat mi ay nawleem lañ. Mm-hmm. ruus na génn di nettali lu uteeg ñoom lañ fekkee ak greffier yeeg yooyu. Mm-hmm. man yaakaar naa président Sonko ruus na loolu. ok est-ce que moom ñeme na toog doyen des juges na ko pare nga ko def test ADN sans préciser voie bi moom mu génn. xaaral ma ñëw. s'il xaaral ma ñëw rek. bi ngay non bi ngay développé dagguma la s'il euh, moo génn. mu ne. Ah, juge bi mu ne juge bi. moom moo doyen des juges dafa ne Ousmane Sonko est-ce que pare nga pour def test ADN kooku bañ ko dégloo waxul benn yoon deret te bu fekkee yor ngeen élément bi. seetaan naa ko comme yow ñu déglu ko. ok ah. d'accord du rek ah, mais son client. moo génn na deret lañ ko laaj. Ah. déggoo benn avocat am demante moo tax déggoo yaakaar naa yaakaar naa yaakaar oh, naa. loo xam-xam diw diw gën laa xam boppam. moom mi doon wax ak doyen des juges. donc lu tax nga tànn ci deret ça pose problème. et puis moom nee na ñi téye prélèvement yi wóolu leen moom waaye yow kooku yow koo wóoloo de naka nga koy joxe pour mu àtteel la. Mhm. ci ay test ADN. donc nañ bàyyi voie boobu. xam nga li xew mais question bi mooy pourquoi xam nga li xew. man question boobu Sénégal yi bëri ah. non c'est pas pour moi. non ils veulent Sénégal yi bëri non ils veulent amuser la galère. <laughs> xaaral mas mas mas dara lu dul ils veulent amuser la galère. mais wax dëgg dama la ne. may ma foofu ma pour quoi ADN. Mhm. ndaw si daf ne mook Ousmane Sonko seq nañu certificat médical bi mi ngi nii ànd ak prélèvement prélèvement bi la ñu prélevé c'est Adji Sarr waaw lan ngay prélevé bu dee Adji Sarr ba muy mujjee ñëw te nee na sëy na te sëy na laaj ko docteur Alf Seyni non quand même d'accord man man man li ma jàpp mooy man li ma jàpp mooy mooy am na lu xew du dëgg te aussi prélevé nañu un vaginal euh, si ah, chez Adji Sarr da nga jàpp ne am na lu xew non prélèvement am na. am na lu ah, xam nga prélèvement am na loolu kenn werantewu ko. d'accord kenn werantewul mm-hmm. prélèvement am na. Mm-hmm. mais tey jii Sonko pour pour génn si. way way way way waay waay. mais est-ce que mënul woon def test léegi nii. mais defu ko ñu gis mais defu ko dalul xelam. wóoluwul leen. mais am na ci droit mais ma ma précision bu leer. naññi boo xamante ne nii moo yor kàddu moo yor kàddu. bàyyi ko moo moo la interpellé moom. Ah. léegi léegi bàyyi ko mu daan. xam li solo mooy ils veulent amuser nit ñi maanaam ñoom li xew mooy dañ taxawoon ci benn base. na wuy ji na wuy ji na wuy ji. même nañ fekkoon Sonko dafa ragal dem wuy ji. Mhm. te yàlla xam na ni du moom mooy woo boppam amul kenn ci ñun ku yam dossier tribunal waaxu dugg bureau doyen des juges na ko toogal kaay déglu ko ku ko def ci ñun cent mètres ngay fanaane guddi googu doyen mhm. des juges moo am calendrier moo am emploi mooy xool kañ la ko sentir ak kañ la gis ne adéquat na mu woo la bi ñu ko wooyee dem na ok ba muy dem wax na mhm. ndaw ñi bu leen ma toog ndaw ñi toog nañ dem na wuy ji dossier bi liñ ci lim yëpp janoo bi rombul quinze minutes mhm, absolument taxawul ñeneen ñi ñu audition na ñëpp yendu nañ fa tubaab bu bëgg fa fanaan mooy bëriwoo élément yow mën a teg maanaam yow mën a teg en charge ci waa ji mhm. au contraire waa ji ëlbatiku chargé ci teesu complot bi mu lim léegi nag sànq honorable dafa am yu bëri yu mu wax ma noté woon ko mu bëggoon ci revenir honorable mhm. dafa wax ni président Sonko qu'on l'aime ou pas figure panafricain la très sincèrement parce que bu maître euh, Aliou Tine waxee ni bëri na ay chef d'état ay opposant ay leader africain yu koy laaj ay nouvelle Sonko di ko laaj ban voie wala ban moyen la ñu mun a jaar ba gisee ak moom et puis président Embalo li li muy am proximité ak président Macky Sall yëpp nekk président CEDEAO recevoir ko loolu sa prouve que nit ki loo ko bañ bañ bañ nangul ko loo bañ bañ rek nangul ko mun daawam. non qu'est-ce qu'il a xaaral ma ñëw rek mais il tient un discours. Mhm. il tient un discours boo xam ne tous les jeunes africains. en de liberté en quête d'autonomie ci lu bëri dañ ci identifier seen bopp. mais quand Sonko parle en version française vu day ëpp quand il parle en wolof loolu ça veut dire que. à l'être non non loolu ça non. attends mais nañu ñëwaat ci dossier bi bañ a dugg ci euh, porox ndoll booba ngeen baal ma. d'accord voilà voilà nga ma ñëw ci sàmm sàmm nga daaneel ma ñëw ci. sàmm ma daaneel euh, ci secret de l'instruction bi muy wax ne da ko violé mais c'est pas une première. deux ans ngi nii. parti bële di violé secret boobu. Mhm. maître El Hadj Diouf def na. plus de dix conférences de presse yoo xam ne ci dossier bi Sweet Beauté la tey sax def na conférence